googu dañoo bayu sas ci mbokk gii ci mbàkke gii ci aafe gii juddoo jolof ak yet ci ay sa saajo gii ma wax la sa ci ay saak saajo nim ci demee ma la gis nga saajo moo jur ñuy wax saajo baara jur sëñ Abdou Khadir di maami miri di bàyyi jama ba mi yaay sëñ njoogu di jàmbaar ñeme ba aysa itam mooy yaayi balla aysa mii jur soxna mbàkke yaayi soxna jama mii sëñ njóogu daa maamu ci aysa maamu ci saajo wàll yëpp lay la ngaamu ballaay ki jur maam Mor ma Anta Sali kan di maam fallu geneen bokk ngi kon ma wax leen nañ bokkee ba tey ci aafe gi ku ne sa maam ña nga ko rob ca jolof gee ngir mati ñang awa busa ci wet geeye ni soxna ñang tafsir ni njóogu wet gee bokk gi lim rëy rëy dañoo bokki jikko moo tax ba sëñ Falilu ñëw nag jukki ko 63 bi jumaa ji nag matee sëñ Falilu wax sëñ Njoogu du maay amati sekkare benn nag bu may jëfandikoo ngir saa rawaan man Falilu jàpp naa ko jumaa ji mooy saa lépp léegi mat na saa aajo moo doon lii te léegi faju na sekkare boo bëgg ci man ñëwal jël danaa la jox loo xam ni dootoo ñàkk njël gaa yi bari fi daa euh, euh, ñaa demande seet doma daaf kii koor ñu bari na wax sëñ Joogu nag lu rëy rëy lu day sëkk ak barke lu kenn xamu nu mu day sëñ Fallu def ko ni yoral barab bii sëñ Joogu yaa ma doy ci sama baay bi yow la nga doon ñaan am nga ko ci buur bii neel nojji fii di xool borom barak bii fekkoon na sëñ Joogu de dañ koo laajoon loo bëgg nag Joogu de lii la tontu woon man xutbu laa bëggoon borom bi def ma ko ngir man lu dul lii sama bët bi tuufu ko te ba ma koy wax booba nag sëñ fallu fekki ko cey baatinub sëñ fallu mu ne ko xutbu njoogu nag lii rek la te sunu waa ji kum gërëm rek yéege la ngir xutbu weesuwul di digle ak tere tey njoogu yaa ngi fi sëñ bi deel digle tere sëriñ aboo seral nga tey jii guy yi xolub sëriñ fallu ba cër yi nayi ngir xalifab sëñ njoogu tey sëñ falloo sëriñ Abo di xalifab sëñ Fallou sëñ fallu njoogu yan bi yàlla na woyof sa rakk yëpp bég ci yow da ngaa woyof seen mbokk gi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ngeen sax nag ci wér ak jàmm te gudd fan te mën ci diinay lislaam dooni murid saadix yu ngoy ci maam daam sëñ Fallou sëñ njoogu na yokk seen leer li fee ñu ngi ndékkee kaañ ak di reer asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, jërëjëf sëriñ Mouhamadou Lamine Diop ci way yu am solo yooyee nga xamee ne jàllale nga ko fi ci diggante bi nga xamee ne moo doxoon ci bayna Cheikh Mouhamadou Fadal ak sëriñ Diogu Mbacke